waaw euh, li waral ndaje bi tey euh, lenn kese la mooy li nga xamante ni jamono bu nekk ci jamono yi nii askan wi ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu ci la ñuy fanaan muy problème mu pétrole beeg gaz bi Alioune Sall ak Franck Timis ñun nag ñu bokk ci benn plateforme bu ñuy wax aar lu ñu bokk Guédiawaye Sam Notaire ñu gis nag ci jamono jii nii ni mbir mi dafa mel ni lu xaw a lu xaw a suufee jamono yi nii ci ci ci ci communication wala ci kàddu surtout nag fii Géejawaay ñuy xamal gaay yi nii leen combat bi combat bi nga xamante ni waruñu ko bàyyi ñun dañ ko war a xeex suñuy doom ñëw xeex ko suñuy set ñëw xeex ko. léegi ci biir loolu noonu ñun ñu gis ni def nañ fi benn marche si esplanadu stade Amadou Barry bi tout yàggul dara ñu ne noonu loolu doyul dañu koy mottali dañu koy mottali di ko def di ko def di ko def ba bis bi nga xamante ni Alioune Sall bés boobu noonu li tax maanaam maanaam li ñu teg ci ci deram leeral na ko soit li ñu ne moom moo ko jël mu indiwaat ko joxewaat ko wala boog moom mu leeral ni jëlu leeral ni jëlul léegi fii loolu noonu amul combat bi duñu ko bàyyi ndax boo xoolee tey ñun géejawaay ñun ñoo ci gën a takk ñun ñoo ci gën a takk surtout nag ñun ñi nga xamante ñun dañu presque dëkk ak moom muy notaire sam notaire. parce que man ci njëlbeen bi wax naa leen ko lu jiitu maanaam waxu ay Frank Timis ak euh, euh, pétrole ak gaz. newoon naa waa Sam Notaire waa ji njuuma lii lii mu leen jox nii baaxul du xaalis bu set du xaalis bu leew ñu dëgër bopp ñu dëgër bopp am naa ci sax ak ay problème am naa ci ay problème yu sérieux agressé nañ ma fi à cause de yooyu ay gars yu kagulee mais li ma leen doon wax tey mu ngi nii mais combat bi nag lenn kese la lenn kese kese kese la Alioune waxuñu mu setal boppam wala mu indiwaat sax milliard ñun li ñu bëgg mooy mu dégager wu suñu suñu cité mu génn suñu cité mooy mu génn géejawaay moom mu génn géejawaay ñun suñu combat loolu la suñu xeex loolu la Alioune Sall na libéré na libéré ci suñu cité nañu bàyyi tout tranquille mu dem yoonam léegi nag ci biir loolu noonu ñu am benn ñu am benn Euh, manifestation bu ñuy waajal le 6 septembre fii ci devoir notaire yi ñu bëgg nag géejawaay ñëpp ñëw ànd ak ñun ci combat bi ndax combat bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa maanaam ku nekk ku nekk da nga am wàll géejawaay fii nii ci combat bi ba ci xale yu ndaw yi parce li ñuy combattre ku ci nekk am nga ci cër am nga ci wàll surtout fii géejawaay fii nii surtout Sam Notaire léegi ñi ngi woo gaay le 6 septembre fii ci devoir notaire yi dañ fiy def benn rassemblement dañ fiy def benn manifestation bëgg nañ nag ñëpp teew ndax li nga xamante ni tey moo gën a waral mbir mi mooy tey bu fekkee dañu génn side bi dem beneen side maanaam outside mais dañuy am problème problème siggi foofu noonu ndax boo ñëwee rek li lay njëkk laaj mooy yow ana ana ana ana ana pétrole bi ana pétrole bi ana Alioune Sall ana Frank Timis yaa ngi xëñ xun ak pétrole mais loolu problème la te kenn moo ñu ko teg muy Alioune Sall li ñu bëgg nag li ñu bëgg nag li ñu bëgg nag mooy waxuñu sax waxu pétrole ak gaz te ñu bëgg moom mu génn suñu site mu dem yoonam mu bàyyi suñu mairie mu dem yoonam ñun loolu la ñu bëgg tey loolu la ñu bëgg ëllëg bu ñu ko defalee taw feex bu ñu ko defalu nag ñun dinañ ko defal suñu bopp dinañ ko defal suñu bopp waaw te li tax ñu koy def nag xam nañ bu baax ci ci ci charte yu ñu koy teg xam nañ ci charte yu ñu koy teg ba tax ñun ñu bëgg ko def ndax fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii la ñu màggee du ñu nangu kenn ku jóge outside ñëw di tilimal suñu side duñ ko nangu. waaw di wax rek ne ñun intérêt Sénégal rek mooñ tax a jóg quoi. intérêt Sénégal nag bu taxee jug ay nit waruñu nangu toog di seetaan ñu nelawal seen société te ñuy nelawal société bi dañoo bëri quoi tey jii nii da ngay gis exemple yaa ngi gis ay arène nationale pourquoi pas mu waroon mën a nekk benn université boo xamante ne booy dinañ ci jàng di xëy di dem di wuti xam-xam wala pourquoi pas mu mënoon nekk benn société boo xamante ne nii booy toog te amuñu job dinañu xëy. dem taqale sax benn weccet benn 3000 bu ñu yóbbul seen papa wala seen yaay comprendre ga tey jii yu mel nii buy kon ne di am après booy dañuy gën a nelaw rek chômage bi day gën a ëpp nga gis tey ji ay université day mel ni ay chômeur lay former yow da ngay jàng say parents di investir ci yow nga dem ba benn âge bi nga génnee université dootoo mën dara quoi loo xamante ni benn retour boo xam di nga ko mën a indil sa papa wala sa yaay mais da lay mujj indil benn nga toog ci koñ bi nekk benn chômeur foo déposé say diplôme say papier ñu ne la mënuñu la jël kon système boobu noonu yëpp dañ ko war a xoolaat quoi Sénégal booy war ñu nangu ñu leen di nelawloo à chaque fois ngay génn di gis ay jotaay ay jotaay ay jotaay ay jotaay ñuy werante ay football ay làmb comprendre nga ay leneen ak leen yooyu yëpp ba pare nga gis yow Sénégal am na pétrole am na gaz am na or tey jii nii ñun bokk nañ ci dëkk yi gën a riis te pourtant chaque jour ñi ngi ñaan yàlla mais yàlla est-ce que sax du taxaw ne mais ñii liñ may ñaan lépp may naa leen ko léegi nag loolu noonu lan moo tax ñun mënuñu ci jare jariñu kon dañu war a mën a am ay njiit yoo xamante ni ay njiit yu bëgg seen réew njiit yoo xamante ne dañuy taxaw volonté wu pour seen réew sacrifié wu pour seen réew xam nga pas ay njiit yoo xamante ne dañuy ñëw taxaw lekk xaalisu dëkk bi benn fan ñaari fan nga gis yow boo ci bokkee sax nekk benn milliardaire après ñi ci des taxaw di nelaw wala ñi ci des ñàkk di dund ay jafe-jafe yoo xamante ne yow da taxaw naa leen non je m'en fous xam nga man na moonin bi ñëw ma lekk ci kon war nañ dépasser foofu booy tamit ñoom ñoo war a mën a yeewu taxaw xool loo xamante ni intérêt réew mi la ñu taxaw jàpp ci pour mu dem lépp loo xamante ni tamit nekkul intérêt réew mi ñu pousse ko parce que muy président muy maire muy ku munti doon ñoo ñëpp askan bi dañ leen fal pour ñu liggéeyal ñu tey nag man mënu ma la jël exemple pour nga liggéeyal ma mënoo am sa jànk nga koy nga koy liggéeyloo di ko fay par weer bu dee ba pare exemple moom mu taxaw bëgg la imposé na la nii ak nii la kër gi di demee yow yaa koy wax ne ko nii ak nii laa bëgg kër gi demee ko nii ak nii boo xëyee fobereel fii defal lii kon tamit ñun bu ñu leen falee pour loolu la ñoom dañoo war a mën a déglu askan bi bu baax a baax xam gars yi lan lañ bëgg ñu taxaw ci bu boobaa réew mi dina mën a saafaraw mais bu konnee nii chaque fois affaire day gën a metti ndóol bi di gën a saf parce que boo demee ci village bi nga xamante ne ni fa or bi di jugee fa lañ koy gasee Kédougou village boobu bokk na ci village yi gën a pauvre ci Sénégal mais loolu loolu pourquoi xam nga la moo tax yow à chaque fois da ngay gis yow fi nga xamante ne fa la richesse bi di feeñee ñooñu après pauvreté moo fay feeñaat kon loolu noonu war na jeex quoi ñun xam nga loolu la ñu amoon du ñuy sànni di wax ne paa ak maire yi tamit xam nga nañu xoolaat bu baax. bu ñuy jàppale gars ay élection maire ak lu mu mënti doon wala présidentielle bu ñu leen fay benn dix mille rek ñu tàcc xëy suba ba ngoon yuuxu après ñu loraat leen benn cinq ans wala benn dix ans nañu fal ku ko jar quoi.